mbirum yelwaankat yiy jóge ca biti réew di ñëw dugg ci ci biir Sénégal bàyyiwul benn yoon ginnaaw ki yor mbirum yoon ak wàllum protection ca rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ñu gën ko xam ci RADDHO Senghane Senghor jàpp na ni problème bi nag dafa complexe lool. ñun ñëpp seetlu nañ surtout fii ci Dakar am na aussi ci yeneen région yi mais fii la gën a feeñ loolu nekk vraiment inquiétude. kii xeex ak yelleefu doomu aadama yi ni mel moom ñu ngi wax fii ana lan mooy. pousse ñi nga xam ni ñoom ñoo di yalwaankat yi ñu jóge biti réew daal di ñëw fii ci Sénégal. ñun militant droit de l'homme mën nañoo comprendre ñooñu di fi ñëw. nit dafa am droit bu demee bi fi mu nekk amatu fa yaakaar mu mën a jóg dem feneen fu yaakaar ne mën naa faa réaliser woo wala ma defar sama àdduna. sunu réew di Sénégal dafa war a tekk ay matuwaay ngir xool dugg ak génn bi bu nu sukkandikoo ci ay kàddu yi Abdoul Fodé Sow délégué général univers el Sénégal. bu ñu fàtte ne suñu réew aussi dañuy wax naan fàggandeeku balaa nga lakkale da nga war a mun a taxaw si tànku fàggandeku pour ñiy dugg si comme amul fenn fu ñu jóge ko foo xam ne guerre dafa nekk wala leneen si jàmm ak salaam lañ fa nekkee war nañu mun a balaa ñoo dugg si ñu seet si leen droit criminel nag bi nga xam ne suñu réew am na taxawaay bu mu taxawee ñaar ñi nga xam ni sekk nañu ak ñoom waxtaan wi sàkku nañ ci état bu Sénégal mu daal di jël ay matuwaayam ñi nga xam ni ñoom ñoo di yalwaan jóge ci ay dëkk ngir bëgg a def Sénégal seen toogukaay